léegi xoolal yëpp souvent léegi boo tee waaw xoolal yëpp ñu teg ko ci gën a ko waaw léegi boo maa léegi. léegi daa am ñu taxaw bu ko xoolaat léegi daa am nga ba pare. ak taata ma yëpp jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñu ngi nuyu baax a baax di leen ziar ñu ngi taxaw ci nga xam ne nii ndaxte fekk fii si rond-point Yoff gannaaw influenceurs yi nga xam ne ñoo obligé ndog bi ngeen xam ne chaque année alors ndaxte ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay maa ngi nuyuwaale képp koo xam ne rek. Euh, teew na tey ji ci sunu bi ak képp koo xam ne rek euh, doole nañu. bi nga xam ne initiative bu rafet la influenceurs yi daal di koy organiser lan moo doon taxawaay. ah wane ni ñu ñëpp benn la l'union fait la force parce que tey ji ñu ci bëree bëri bari bëri bëri dañuy bëgg a def initiative bi mais dañ dul xam nan ak nan ak nan ak ban yoon la ñuy jaar. tey jii ñun ñëpp nekk ay influenceurs wala ay artistes wala ay acteurs gis ngeen ni ñëpp a fi jaxasoo ñun ñëpp ñu ñëw booloo nekk benn comme que ñoo bokk même milieu bi jàppalante suñu biir ndax ñun bu ñu génnee clip sans influenceurs yi wala sans tiktokeurs yi du dem tiktokeurs yi bu ñu génnee dara sans pour autant que ñun ñu defaat ko du dem kon ñun ñëpp ñooy jàppalante suñu biir mu doon benn moo tax tey jii ñu organiser benn affaire defandoo ko ñun ñëpp macha allah. alors wax nga léegi si wàllu clip si wàllu musique si loolu la ñuy dugg tey dañu koy gis ndaxte mu génnee clip wala son si lan la nekk. du ma leen ne weer du ma leen ne mois mais ci fan yu gàtt ngeen gis ko. maanaam si biir koor. si biir koor incha allah. ban ci biir ak après koor gi ndaxte tàmbali na. ndaxte que ndaxte ba léegi mën nga xaar si biir euh, presse art wala. bien sûr. lañ gis démb Aïcha Koné annoncé maanaam li nga xam ne ni mu koy waajal yow tamit nga annoncé ko est-ce que dafa mel ni seen bëri gaale rek seen bëri gaale ñooy ñëwaat wala. maintenant ñun ñëpp ay ay ay mag lañ maintenant nous sommes devenus de grandes filles sant yàlla ba ku nekk tey jii taxawal sa carrière solo sant yàlla ñun ñëpp macha allah. mën album teel na parce que sama première son lay doon solo. kon bokk euh, mënul nekk euh, album mais juste dina nekk li nga xam ne moom mooy benn son bu ànd ak clipam wala du benn sax. nan mën a boole nekk maanaam animatrice wala présentatrice projet TFM di si boole carrière musicale am. pardon. maanaam carrière musicale ak maanaam journaliste bi nga xam ne yaa koy def projet TFM nan la sant yàlla parce que lépp loo gis ak temps parce que boo seetloo émission yi euh, avant koor bi tous les lundis la woon tous les mercredis ak tous les samedis lundi ak mercredi moo doon nekk seetu bi samedi yi nekk weekend star mais bi bi bi koor gi commencé la ñuy di def léegi chaque samedi kese muy weekend star bi leen gudde bu koor gi jeexee ñu reprendre sama carrière solo du ci yàq dara sama carrière musicale ndax loolu matinal bi la. te fasawu la nan déggee kàddu yooyu bu nga dégg nga def. non loolu du si wax dara franchement question yooyu moom franchement du si bëgg di wax. mais dégg nga wax ni. si dégg naa ko. bu jotee rek incha allah ci wax. waaye wan observation nga jàpp. bëgguma wax ci loolu moom su ko delloo bu fekkee mën nañ changé ah. ci loxoy prince aar sama loxo famille sant yàlla bu maa ngi ci loxo presse aar ak loxo képp koo xam ne rek mu ngi support ndax maa ngi solo ak ci loxo yàlla. maa ngi ci loxo yàlla maa ngi ci loxo yàlla waaw. du ma wax ci loolu de ba tey. du ma wax ci loolu ba tey. pour muy leer pour muy leer ndaxte nekkul si loxo jëkkëram mais mu ngi si loxo yàlla. du ma waxagum dara maa ngi sant yàlla maa ngi sant yàlla. Ousmane fu mu toll wax ne porte de voix nga euh, ñoo ngi si ay élections ban conseil ngay am pour jox maanaam jeunesse bi. bon euh, juste benn affaire ah di remercier tout d'abord balaa dara je vous remercie ñi xam ne yéenay def wàllu journaliste parce que c'est un métier boo xam ne yéen rek yéenay xam ni ngeen di daj sur le terrain mën nañu bañ parce que jaar naa ci école physique jaar naa maa naa fi sama licence macha allah. métier bi xam naa ne métier bi métier bu doy waar la métier bu métti métier boo xam ne tey jii ku nekk li ngay dund yow rek yaa ko xam yal na leen ci yàlla defal jàmm may leen ci lépp li ngeen xam ne yéen a ngi koy sëñ ñëpp ñi ngeen xam tey tam gis nañu ci sunu joxe ndogu bi ñi nga xam ne jàppale nañu ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ni que yàlla yàlla rek moo am seen fay te dina leen ko fay ndax da ngeen génne dara jàppale ñu ko pour ñu jox rappelé toujours que ñu ñu fekk nga xam ne moo di Fatou nekkatul ku ñuy présenté ci nga xam ne moo di TikTok bi fa ñu bëggoon a xam rek relation bi ak li waral li nga xam ne moo di tey nga bokk ci li nga xam ne moo di Lacoste yi ah, nuyu naa leen ñëpp dañ ma woo pour ma ñëw participer ci ñu ne ndogu te yàlla tax moo fi andi kenn andi wu ndogu yàlla tax moo fi andi en muy nekk lu ma rafet lu rafet trop ñu ñëw ma mel dama leen xam démb nag waaw. tey ñu daan lay gis nag nga percé bu baax baax ci li nga xam ne moo di réseau yi ba tax na ku jóg rek daal di collé nga xam ne moo di faatu ci mel ni sa doom day aadamoo ak ñeneen ak ñeneen ñi lan ma waral collage yooyu wala yow daf lay neex. pardon laaj ma ci tey dama wax ci kooku. non s'il te plaît jàpp ci rek wax. loolu dama la ko ñaan dama wax ci moom. parce que nit da am nawle. waaw def ma ko nawle daal. kon Adama moo daal dafa da nga jàpp du sa nawle. wax ma ci tey ma tontu la mm. nga def initiative bu rafet ah ñu jekki jékki à un moment rek ci groupe bi faa dugal benn somme boo xam ne macha allah xale yi ñëpp ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy rafetlu lan moo tax nga bàyyi ba dernier moment boobu appuyé ci à 100 pour parce que euh, dañu dem ba dernier mois wax nañu dañuy passé en fait looloo tax ma joxe loolu te xeeb naa ko trop maa moon ni milliard tamit dama ko ci def parce que dañ ne te yàlla tax. gars yi di laam-laame sa diggante ak son yi. ko gis. mosoo ko gis. non mais gars yi ñu ngi koy laam-laame. xaw ma sax bu son bi yaa ma ko wax tey. Hmm. <laughs> wala seexu naa ngay wax. bien sûr seexu naa waaw sama mag la sama mag la. mais dañoo gis intimité ba mu ëpp parce que des fois sax daf lay waxal endroit yi. ngay dem parce que dañoo nekk ci ay contrat lu ñu liggéey dama koy def ay place am et tout ça. Mhm. loolu la rek moo tax ma bëri fa tànk. Mhm. tey nga daal di nekk ak moom da nga leeral Sénégalais yi que nekk relation mais plutôt amitié. ma vie c'est ma vie en tout cas y a rien en tant que xale nan ngay dundee yenn critiques yi. mënul ñàkk boo choisir nekk ci réseau yi. ngay jël wax ñaaw rek teg ci ginnaaw li lay avancé loo nga xoo ko te dem. ok mais say parents du leen def dara. non non nekkuñ sax ci réseau yi. mais nan nga dundee sa retour bi nga xam ne bi nga jógee Côte d'Ivoire ñëw tamit daal di fekk rumeur yi mu gën a sax ci sa côté. dundee ma ko dama demoon pour fierté dem pour sama réew ma ñëwee kenn. encouragé wu ma tamit ça moo tax encouragement boobu amu ci. je pas jiwu xaw ma sax je ne pas mais en tout cas fu ñu mënti nekk xam nañ fu ñu doon xam nañ li ñu bëgg teg ci kaw ci kanam. incha allah Fatou sa sa rumeur ak sa buzz ci TikTok bi. jàppoon yow yaa ko créé parce que yaa mujjee ñëw ci réseau yi euh, donte say contenu fecc la ak mbalat nga gis ni percé woo ci nga ne xaaral ma changer méthode nga dem Côte d'Ivoire. préféré sax bu dee nit ñi dañ lay tuumaal wala di la waxal lu ñaaw doon te nga doon doomu jullit jóge Touba ak ceeb te nga loolu est-ce que du faat moo créé mi euh, euh, bija seen boobu. bàyyiloo xel lu bari et aussi dafay tax nga jàng lu bari quoi te par rapport les commentaires négatifs yi euh, y a des leçons à tirer quoi tu comprends donc c'est un boo xamante ni ñun sax dañ ko soxla. donte neexul mais dañ ko soxla parce que daf ñuy permettre voilà quoi pour aller de l'avant vite fait gën a tracer suñu yoon quoi. mag ji ko xam-xam ni ko dafay def ay vidéo yoo xam dafay yeete mais ñenn ñi nga xam ñoo nekk TikTok bi di yàqante pourquoi genre yooyu nga da ngay da ngay yeete ku xam say vidéo day gis ni da ngay yeete da ngay def ay leçons de de morale ak yooyu alors que nit ñu bari ñu ngi ci biir di yàkkante bon question de choix la question de mën-mën la question de gis-gis la. Euh, ku nekk ak li nga gis li nga xamante ni moo gën a yomb ci am na ñoo xamante ni toog saaga luñ mën moom lañ mën a proposé moom la ñuy def am ñoo xamante ni yàqante lañ mën loolu la ñuy def ko donc tu vois question de choix la ñun ñoo choisir euh, defee nii suñuy vidéo type de création de contenu bii nii donc keneen malheureusement am na ñoo xamante ni côté négatif boobu noonu lañ lañ lañ choisir donc mënuñu si dara quoi question d' option la ku nekk ak li nga mën ak li nga tal ak li nga bëgg jox sénégalais yi quoi. Euh, mag ñu xaar maanaam saaga béy parce que waxu dof bi la gars yi di gën a bàyyi xel nag. Ah, da ngaa bëgg mu dugg si yooyu quoi. parce que des fois da nga def sa vidéo mais da nga egg ci saaga rek nga nga limité ko ay quatre mais doo àggale. non mais déjà loolu su ma ko bëggoon du ma ko def mun du ma ko mën parce que euh, su ma ko bëggoon duma ko mën duma ko def parce que c'est pas moi. mais ñu naan wax la ñuy gën a bàyyi xel TikTok. ah bon loolu ñoom la rek ñun ñu ñuy bàyyi xel te ñu ci def ñu ngi ñuy bàyyi xel te nekkuñu di def waxu dof. yaa ngi comprendre donc question de gis-gis la mooy li ma la wax tout à l'heure ku nekk ak li nga gis li nga jàpp ni moom moo lay déjà moom moo lay euh, avancé loo ci say création de contenu ku nekk ak mu ngi daal xam nga. première édition première édition kaay ndogu la. waaw nice na gis fi tiktokeur yu bari ñu rassemblé wu fii nii fas yéene jogoon joxe ndogu mu nekk benn cause bu noble ah. di ñaanal initiateur yi yàlla bàyyi leen fi may leen gudd fan wér gu yaram bañ continuer di ko def ay at yu bari quoi waaw. merci merci univers. jaaj naar mooy wax. ah sa uh, uh, mariage. mooy wax animateur la lay animé. Ah, mais li wax nag. ah loolu ma lu ma si wax. mais ñu xaar mariage. ah sama mariage incha allah. sama mariage. xaar leen sama mariage incha allah xaw ma kañ la mais ñaanal leen moom nu mu gën a gaawee gën a neex. <laughs> moo tax présence su mag. waaw samay mbokku tiktokeur samay nawle samay gain ñoom ñoo ko organisé donc c'est normal ma ñëw teew voilà c'est ça. Euh, bi nga ñëwee gis jeunes yu mel nii taxawal lu tol nii ban yëg-yëg nga am. bon lu rafet la vraiment. lu nice la déjà jaamu yàlla la joxe ndogu moom nekk na lu rafet te. bari na ay préjugés yoo xamante ne am nañ ko ci yenn tiktokers yi am nañ ko ci kii kii yi donc bu ñu gisee yenn initiative yu mel hmm. gis ni tiktokers yi la plupart ah, woon sax ci genre initiative bii nii est que tamit ñi am benn aperçu ci benn tiktokers yi yoon a xam ni loolu benn instant de jeu rek mais ay nit ñu conscient la bon am nañu ko xam mais am na ñoo xamante ni comprendre ñu et c'est c'est normal àdduna moo demee noonu du ñëpp a comprendre ce qui se comprendre nga tiktokeur yi ñëpp ngi si jàmm amuñu problème bon man boo gisuma loolu et ay nit yu responsable ñoo si nekk ay nit yu baax ay nit yu xam lu ñu bëgg xam lu rafet quoi donc lii nii benn preuve la ci donc ñeneen ñi nga xamante ni ñoom ñoo am seen gis-gis rek moom la ñuy fësal donc du coup c'est pas pour moi. mag yi ñu daan lay gis si tiktok bi macha yaa ngi percé tey ana yan vidéo moo xam ne moo la gën a marqué moo xam ne là ça bu fekkee vidéo yi may def vidéo short yi moom bon yëpp mu marqué ah sincèrement am na yu ma gën a marqué mais bu ma bëggee toog nii di ko filtrer ça va être compliqué parce que am na yu bari yoo xam sax dama ma kiiyaat ko mais euh, je dis que daal am na benn court métrage mu sa def boo xamante ni mu ngi tudd euh, ma lumière bokk na ci ma gën a marqué vraiment ci lu ma def quoi mais à part ça ci des yëpp moo j'aime bien quoi. mais tey jii kii yu négatif yi quest que ça te fait maanaam euh, maanaam ni nga ko commentaire lan la lay def. des fois ñu saaga sax dañuy saaga. waaw ah, déjà <coughs> commentaire moom euh, c'est un boo xamante ni lu am importance la que mu nekk négatif wala positif donc commentaire négatif yi d'une part dina la métti mais quelques pour cent lay nekk. mais c'est un boo xamante ni daf lay gën a forger daf lay gën a xippiloo say bët gën lay daf lay gën a euh, bàyyiloo xel lu bari. et aussi dafay tax nga jàng lu bari quoi te par rapport les commentaires négatifs yi euh, y a des leçons à tirer quoi tu comprends. donc c'est un boo xamante ni ñun sax dañ ko soxla donte neexul mais dañ ko soxla parce que dafa ñuy permettre voilà quoi pour aller de l'avant vite fait gën a tracer suñu yoon quoi. mag ji ko xam-xam ni ko dafay dem ay vidéo yoo xam dafay yeete mais ñenn ñi nga xam ñoo nekk TikTok bi di yàqante pourquoi genre plupart entre vous da da ngay yeete ku xam say vidéo day gis ni da ngay yeete da ngay def ay leçon de de morale ak yooyu alors que nit ñi. comme ne si noonu ne. maa ngi nuyu naa la. tey nag yéen ci rond point Yoff di joxe ndogu en tant ay influenceur ak ñi nga xam ne aussi ay acteurs lañ mu ndax vraiment lii moom dafa nekk la nga xam ne rafet la vraiment ndax ndogu moom joxe ko rafet mun ta weesu loolu macha allah weeru ko nit woor ba ngoon nga jox ko ndogu ne ko lekkal naanal loolu vraiment tiyaaba bi nga ci am ñun sax lan moo waral ngeen def acte bu mel nii tant que ay ndaw bu leen neexoon ngeen jël seen alal ngeen ko seen kër yi mais ngeen jël xaalis ñëw dimbale ñi nga xam ne dañoo soxla ndogu surtout ci weeru koor waaw dafa nit moom defe naa réew mi ku yokk ku la yaawaan te ñun dañoo ñëw pour yokk cere dolli ñeex xam nga dañ naan tiktokers yi ñoom dañuy def lu bon dañuy wax lu bon fekk demeewul noonu koor gi mun ta ñàkk ñu def ndogu lii xam nga c'est la première fois mu am fii ay ndaw def mënut a euh, seen objectif lan la waaw ci kaw ci kanam rek ci lu baax ndax ku ci nekk ñaan nga yàlla tey ji loo nekk rek nga am euh, nga gis ci tànk kanam daal mu bañ a gis tànk ginnaaw mu mën ne yéen a ngi wane ne ay exemplaire ngeen ci réew mi donte ñu bëri dañuy ñu sikkal ne tiktokeur yi dañoo bëgg vie dañoo bëgg distancement dañoo bëgg yoo xam ne yu ñàkk fay duñ def sax yëfu nit donc dafay wane ne yéen bokk ngeen ci réew mi waaw ah, loolu ci biti la fanaan tiktokeur yi boo leen génnee ci réew mi kenn desatu ci ndax gis nga fii ni mu mel gis nga boo mi kenn vraiment ci lañ bokk bi nga xam ne ñoom ñoo ngi ànd tey wane na geste bii nii yéen a ngi def bu baax parce que la plupart dañuy wax ni ëpp yàqante bi sax ñoom la ñu gën a da ngay sax lu sonn nekk fekk ko waaye yàkkante bi dañ faa na ñu bari dañu koy sóobise dañ koy jënd xam nga ku ci nekk tey jii yow yaay xool li nga xam ne moom la sa marché di doxee rek nga defee noonu peut-être sóobise dañ ko jëlee rek ñoom ñi yàkkante waxuma man de ñoom ñi yàkkante ah, man mi ah, non man ma wax lu ñaaw chéri man du ma wax lu ñaaw non ma wax lu nopp gar mi laa yor ki bëtu gar mi géwél la man du ma wax négatif kon li nga wax rek loo ma la. Ah, man bàyyi ma ci xel. yaa hmm. yaa di dugal ci appartement yi di ko hmm, ma ko man mii yaa ko may tooñ ñu ñëw ci koor yaa ngi may tooñ. waxuma ko daal waxuma ko ah. man musuma def lu ñaaw bay bàyyi lool. waaye léegi ma département ngi séddale ndogu yi mais yaa laaj rek naa la ñëwal sa message te ci diine la jëm te amoo foo defee fu dul TikTok parce que xale yi seetaan na suñu télé ñu ngi ci ñu ngi ci plateforme digitale yi nañu may jàmm ah. mais su dañ naan euh, TikTok bi day euh, ci ay mbokk di ci yëngu waaw man loolu gëwuma ko parce que nit moom bu la yàlla appelé sa bakkan nga war a dee da ngay dee man gëwuma ay nii lii wala wala yàlla mi la sàkkal boppam ba tàmmul lu métier jaaral na la ci jëf sa bopp ba la war a mën a def TikTok ba am ay nombre d'abonnés moom mooy ki lay sàmm boo waree daal boo waree dee da dee du ay ay dëkk ci TikTok moo a rey loolu loolu man du wax ma gëm franchement saa yi bu ma bëggee génn na tànn ñeneen ñoo xam ne que man wóykat laa. non takkat yu rëdd loolu à li ñuy wax way ak tagg yonent bi bokkul boo ma dégloo dinaa ñëw waykat mooy que man artiste la aar dafay daw ci sama yaram te damaa jaar ci musique te lépp loo xam ne fi tasu rek nii rek c'est de la musique comprendre nekkul loo xam ne da nga koy jël bële bu ko jëlee ci sens boo xam ne sens euh, négatif la parce que li ma waxee noonu man ko man ñëpp laay déglu uh-huh. wax gi dama koy waxaat. parce que bu ñu nee jànkatu xasaay bu ne damay déglu Wally Seck damay déglu. waaw loolu ñoom la engagé. mais ab jànkatu xasaay est-ce que war na war nañu ko wax tànnal musique tànnal yan a wéy. a wéy ma ne. yan di déglu seen i son ma ne ko man maa ko précisé ne ko musique wala ñu ne ma ko million ma si musique bi man ñun ay tur ma ne ko Momo Dieng Wally Seck ak Coumba Gawlo. waaw dama koy déglu bu baax non du ma ko mës a way su ma dëkk woon ba heure bi du tey laay dëkk ndax yonent bi dafa na ma teraanga maa ngi dawal oto am naa kër maa ngi sant yàlla bu baax a baax kon bu ma dëkk ba du tey laay dëkk waaw mais parce que man si suis un artiste am la mooy artiste jaañ naa mooy quelqu'un qui est complet loolu mooy artiste yaa muy dégg voilà te man néew ma euh, tubaab dana seul talent ne suffit pas du ay way kese moom moo tax artiste war a complet man dama di tagg yonent bi mais au temps au temps moderne parce que damaa jàng école jógee ci cours yi dagg lépp nga damay jaay samay kaye rek jaay samay bit di tagg Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ñëw tombé au vingt et unième siècle xale yëpp ak yeneen ak bu dara man damaa yàgg bëgg mode bi may jàng école lii ci man la bokk te damay sol lu yiw loo xam ne foo ma woo instant boo joxoon micro ma ne der tagg yonent bi ndax li mën naa tagg yonent bi ndax mën naa julli ci àddina du am bu ma déggee tambale day sur ci yéen incha yéen ñëpp ku ah, te yàlla rek tax ndax dañuy dox te yàlla rek waaw ginnaaw bi ma leen nuyoo ngi sant yàlla baax a baax di am mbégte ak contentement di teew fii parce que initiative bu rafet la ay jeunes lañ te bu leen neexoon ñu woote leneen waaye def te yàlla tax kaay ndogu loolu lu rafet la te ñun ci lu rafet la ñuy dox ndax bi daan na dégg ci def lu rafet moo tax macha allah rabbi ñu laaj suñu teew ñu bo wuyu si leen parce que sama rakk ci la bokk macha allah moo tax man naa ñëw ànd ak sama gars yi ñëw def ak. waaw dégguma nga ne ko xam relation nga xam ni. waaw am nga ko ak tiktokeur ndax la xam-xam. li nga xam ne mooy waaw parce que dafa nekk application boo xam ne yàggul waaye dafa joué ci carrière yi nga xam ne dafa aar bu waxee aar nag lépp la du du way kase macha allah boo seetloo da ngay def sa son. tiktoker ñoo koy calante te mu ngi koy calante ne ñoo xam ne dañu àdduna kon nag ñoom mënuñoo dem saa ñoom ñu aussi mënuñoo dem saa ñoom loolu moo tax lépp ñu jàpp ñu bàyyi ko ñu yusuf parce que ñu yow la ndax ay nit yu baax la ndax tey képp jox la bu ko si lebee nga xam ne mënoo ñàkk ci euh, milliard waaw dañ def loolu léegi heure bi jot na léegi jot léegi nag jublu si waar bi képp gi sol la ko su ñëw si waar bi waaw defuma dara sant yàlla la rek parce que àdduna moo tëddee noonu te dañoo nekk ci dëkk boo xam ne moom dëkk bu naqaree waxee ku ci nekk bu gisee benn affaire rek ñu moo tax dañuy xam rek bàyyi li ñu def ñun teew sant yàlla rek la daal parce que boo xoolee moom nekkul Sénégal mi ngi à l'extérieur ba pare rumeur yi bari woon ci côté ba ñu bëri sax doon nañ ne ak ki nga xam ne dafa bébé Eva waaye moom am seen diggante non loolu loolu du débat la baal bu baax parce damaa ñëw si ndog yi te bëgguma dugg si débat boo xam ne day day xaw a génn ci ci ci champs yi ndax si weeru koor lañ nekk ci baalante ak te bëgguma dugg ay yoo xam damay tudd ay tur wala leneen ak leneen ak leneen mu nduru jëw sama koor bi doo euh, waaw jox euh, bu demee bañ naan dañ ko war a ah. euh, waaw jàngat boobu ma que man man d' accord parce que loo gis muy TikTok réseau bu mu mën a doon am na lu baax am na lu bon. muy muy oustaz beeg muy imaam beeg muy beeg am na ci ñoo xam ne ñu pour faj mais am na ñoo xam ne ñu ngi ci liggéey liggéey bu pertinent liggéey bu am solo am na ñoo xam ne seen compte ñu ngi ci jaar di def ay ndibal lii dafa rafet te lii tey dana leen bu tëkkam amoon xëy na peut-être dajale xale yu mel ne du yomb kon initiative bu rafet la nañ leen di encouragé moo gën di découragé loo xale yi loolu lu rafet la TikTok buñ ko bannir ku ko def deful lu baax ndax nit ñaa ngi ci jariñu defaa fois nga bëgg véhiculer sa message te ci diina la jëm te amoo foo koy defee fu dul TikTok parce que xale yi seetaan nañu télé ñëpp ñu ngi ci ñu plateforme digitale yi nañu may jàmm ah. ñu leen di nuyu di leen sant di leen gërëm initiative bi dañoo toogoon nii rek ñuy waxtaan comme Linguère dafay dox ci social ak Jumon AC ñu toog ñu nekk di wax projet Jumon AC ñu ne pourquoi pas ñu créer ndogu ma leen waaw ñu ne bay baa ubbi groupe bi ma ubbi groupe bi xale yëpp dugg ci ma leen ndogu bi buñ ko dee tuddee kaa leen ñu tuddee ndogu maanaam kaay ndogu buñ man su ma ko esatee samay nit ñëw kii bu ko esatee ay nitam ñëw Linguère bu ko esatee ay nitam ñëw Jumo bu ñu ko esatee seen nit ñëw dañoo dajale ay nit pour jox leen lekk jox leen ñu naan loolu moo tax ñu am initiative Kaay Ndog Kaay Ndog boo ko waxee tey yëpp yàlla la ku ko gis si internet bi xaar ñu woo la parce que ku ko esatee rek. yàlla tax la ñu wax bañ na ko ba slogan bi mooy def ko yàlla tax waaw. alors est-ce yombul. waaw mais wax dëgg yàlla dama ci am mbégteel parce que mbégteel bi mooy suñu suñu groupe bi ñu def dañoo bindoon dépense yëpp wax lépp dañu ne lii ak lii ku koy jënd xale yi ku nekk da ngaa yëkkati loxo kii jënd soble kii jënd diwlin kii jënd lii kii jënd lii te daloo bi neex ñu suñu pare aussi di remercier Mamadou Yata Saay wax dëgg yàlla indi nañu ni 2000 pagu ndox ni ñu lii maa leen ko jàppale monsieur le maire sànq gis ngeen ko ñëw na fii rien que parce que ñun dañoo nekk ay jeunes parce que lii yombul yéen gis ngeen lii seen bët moo ko may lii yombul adduna buñ ko jënd lépp mu sax ay nit fii jënduñu kenn fayuñu kenn nit ñi ñoo ñëwal seen bopp parce que dañoo xam ne li ñuy def bu ko dëgg si ñun te idara bu fi dugal nañ ko si mu jeex loolu am na laajal leen ma ñii ñun ñëpp dañoo def réunion ma ne xaalis bi lii la temps la ak temps ak ñu ne ma ñaata la ma ne leen ku nekk jox nañu diw jox nañu kii jox nañu kii jox nañu donc lii ba ne ma ma ne ko man soxlawu dërëm lépp ndogu li la jëm man sa yoruma woon xaalis bi kii moo yoroon xaalis bi Linguère waaw moo doon gérer affaire yi ñi di gérer lii bañ doon dem marché man rek dew ma ñun ñëpp a dem dépense yi la ñun ñëpp a ko xam fokostoor da doon taal yàq essence am di ñëw kon xale yi amuñu seen fay li yàlla rek moo tax ñuy def ko fayuñu leen kenn au contraire ñoom ma leen di ñaanal di leen wax lu ñu mën ren yàlla nañ ko mën déwén du ko bu ñu yem fii bëgg nañ créer defaat beneen incha allah def laylatul xadri bu mag ñëpp ñëw parce que lépp lu jëm ci wàllum yàlla dañ ciy sawar ndax lii joxe doon la jox nit woor ba moo jot ba jox ko mu lekk kooku ko posé maanaam association bi est-ce que ay influenceurs kese association bi li nekkul parce que t-shirt yi bu ñu ko leen la dindi leen ko parce que fii am na ñoo xamante ne dañuy liggéey influence taxu leen a jóg am na docteur ci biir am na ñoo xamante ne ay commerçant lañ am na ay businessman am na ay tiktoker am na ñuy théâtre donc nekkul influenceur dañ na ko ba ba ba mu ñëwee xale bu ñu ko gisee dañ ne non duñu ay influenceur donc dindi ko maanaam ñuy bëgg taxuleen a jot wane wu taxawoo la jot xale yu siiw ñoo nekk si biir du joxe ay cent mille trois cent mille deux cent mille te koo ci ne dama koy wane mu ne la déedéet téye sa loxo kon xam nga ne ñuy def ba dëgg si a rëy a a rëy pour le moment kaay ndogu la ñu wax yàlla tax waaw. alors gis nañu ñu mel ni yéen euh, xam ne ñoo koy def ci mel ñoom avec ñoom est ce que c' est la même chose wala. luy lool. am na ñenn yoo xam ne comme rek. ah dañ leen loolu ñuy def ñu jub ñu ànd jub. parce que gis nga lewul bés boo ko lekkee foo ko dugal day feeñ alalu mbooloo moo tax ñun alal ji dañ alalu mbooloo fi ku ci nekk yaa ngi liggéey bàyyi sa liggéey tey ñëw donc loolu rek la ñaan yàlla lépp lu ñu dugal suñu biir na nekk lu ñu lew lépp lu ñuy dugal suñu biir na nekk suñu ñaq fii nii kenn ku ci nekk ñaanu yàlla dugal loo xamante ne lewu la man keneen kuy dugal ci ay affaire mbooloo wala dara dama lay wax ne que ñu ko looloo yàq na nit defar projet incha allah bëgguñu ko yemale fii rek parce que dèjà lii daf ñu ëpp ku nekk indi na ay am fii presque mën naa am nañ ci cinq mille francs xamuñu maye ba jël ci daara yi ci leneen joxe ko ndax nit ñi indi indi indi ba xamatuñ lu ñuy def ñun mënatuñu sax gérer organisation bi yéen gis ngeen ko parce que tellement que affaire yi ay artistes yoo xamante ne yaakaaruñu woon dinañ ñëw yéen a ngi gis Mouhamed Alla Diop ñëw na maire bi na Cheikh Yaya Faye ñëw na ñeneen ak ñeneen ay autorité ñëw nañ donc ñun ñi am defaluñ leen dara jub lañ leen wan ak yar te bëgguñu ko yemale bi bëgg nañ def incha allah di joxe ay don di distribuer di maye di jàppale nit ñi bu suñu doole toll ñu xam ne suñu doole toll bu ñu bu ñu ndimbal tàllal suñuy loxo ñaan mais tant que ñun allah dinañ ko def ba fekk si ñu jël si ñu jël incha allah. leen wax ngeen ñaanal ñii ñii aw ma fay tey bu rek association bi dem bu rek su ma tàllalee samay loxo ak jumeau à groupe lañ bu ñu nee dem groupe la ñuy dem chaque jour kër kii la ñuy nekk ba quatre heures du matin kii mooy taal essence am doomu maire xale yi aw seen fay ñii dañoo tëj seen boutique Khadija jóge ba Thiès ñëw kon ñii amuñu seen i fay xam nga di wax ñu focus ci lu ñuy def yàlla suturaal ñu musal ñu ci cat musal ñu ci làmmiñ lépp loo xamante ne waxu noonu la te xam ne ñun àdduna ba ñu critique critiqué leen ñu wax leen ñu lu leen neex parce que loolu moo ñu yokk jot critiqué leen ñu yéen ñëpp non dama koy wax on est au Sénégal nous au Sénégal pays boo xamante quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi dañuy critiqué un pour cent yi di apprécier soo gëmee rek wala nga découragé rek doo avancé il faut ngeen critiqué pour ñu mën a avancé ñun ay ndaw lañ de ay xale yu ndaw dañuy door a jur def lu baax moo ñu tax a jóg tey ku mu neexoon ñu créé sa ndogu boobu wala nga jël am na sax lu may wax merci beaucoup.